dali na jàmm ñoo ànd xëy yér ba muytuwulee moo a tas ndax bëri na ay xuloo bëri na contestation bëri na ñoo xam ne mer nañu ba mara détails yi journal bi nee na rébellion ji moo am ci biir PDS te li ko waral mooy renouvellement yi nga xam ne jamono ji ñoo koy def te élection yi léegi tey mu yegsee yéen gi nee na ñoo xam ne demoon nañu ci bunta PDS ngir nag wane seen naqar ndax bëri ay représentant fédération yoo xam ne jamono ji dañoo mer affaire ba mara détail te mbir mi sax dafa yaatu ci biir Sénégal mën na la gis nga bëri ay gox yoo xam ne ànduñu ci renouvellement yi nga xam ne def nañu ko rawatina ci diwaanu Mbuur journal bi nag nee na bu dee am ci PDS dee ñëwul ci élection bokk ci maanaam dina wor ñi nga xam ne nag ñooy waa PDS te nag bu boobaa maanaam PDS fi lay jógee daal di dee ci lu jëm ci wàllum politique ndax ba léegi am na ñenn ñoo xam ne ci biir PDS li ñu jàpp mooy Karim Wade jamono ji bëggut a ñëw ci élection yi yéen gi ne na en tout cas li ak liñ mën a jàpp ci parti bi di PDS rébellion moo fa am te li nga xam ne moo ko waral mooy renouvellement yi nga xam ne sumb nañu ko contestation ya bëri a mere mooy député moom la ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko aku bokkam ci élection présidentielle jamono ji ak réero daf cee daal am ndax dafa am yenn boroom xam-xam yoo xam ne ñoom nee nañu a mooy wàllum contumace bis bu ñu la ci àttee bis bu ñu la tegee loxo àtte ba jeex na daan jeex na yenn boroom xam-xam loolu la gis waaye nag Ismaïla Madior Fall mi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi moom gisul loolu moo tax journal bi di Sud Quotidien na mu ko tuddee mooy maître Amat Thiam xelam màcc jëm ci wàllum yoon ak Ababacar Fall bu GRADEC ñoom li ñu wax ci wàllum contumace ak li ci Ismaïla Madior Fall wax waroon na yéen kaay gi di enquête xëy xibaar naa ñu Guy Marius Sagna nee nañu ko yaay plan B bu Pastef mu lànk ba tëdd sa naaj wa ne jamono ji loolu nekkul ci seen xel waaye en tout de sall débat bi jamono ji gars yi ñoo koy gën waxtaane Cheikh Thioro Mbacké di député moom nee na Pastef ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko mi nga xam ne génne nañu ko ci liste yi notifié nañ ko journal lu Madiambal Diagne bii de Le Quotidien nee na 20 septembre bi nga xam ne moom la ñu génn la ñu jël notification bii firndeel Ousmane Sonko génn nañu ko ci liste yi yóbbu ko ca mairie bu Ziguinchor journal bii de Les Échos nee na ko gisuma loolu li ma gis mooy benn huissier boo xam ne juróom fukki fan yoo xam ne doon na wër ku mu jox notification bi mënu koo gis daal di dem déposé ko su su préfecture bu Dakar Plateau waaye nag Le moom li mu wax nee na ca mairie bu Ziguinchor lañ ko yóbbu su préfecture bu Dakar Plateau la ko yóbbu ñaari journal yi kan moo ci wax dëgg yéenekaay gi di Source A xëy duñu xibaar naan ñu am na ñaari candidat yoo xam ne jamono ji tiit nañ ba maara détaillé ndax dañoo jàpp ne ñoom duñu am ne ñoom dañoo bëgg ay député daal leen di parrainer waaye nag dañoo bëgg député bu leen parrainer ñu yëkkati fukk ak juróomi million jox la wala jox la ñaar fukki million par benn député ndax ñoom dañoo jàpp ne lu toll ci quarante quatre mille quatre cent cinquante neuf ci électeurs mënuñu ko am maanaam moo tax ñu bëgg jënd ay député ngir député yi parrainé leen surnal bi na mu ko tudde comme daral ga daral ga na mu mel moom la ñaari candidat yi bëgg a def député yi journal bi ne a am na ñaari député yoo xam ne ñu rëy làmmiñ lañ bokk ci opposition bi ñooy courtier yi ci assemblée nationale surnal bi nag nee na kenn ki nga xam ne candidat la bëgg a jënd ay député kookee nag jigéen la koo xam ne ko bees tàq la ci mbir mi ak benn góor boo xam ne maanaam candidat la woon 2019 te ñu kale woon ko ñaar ñuy ñëw bëgg a jënd ay député journal bi nee na mbata daral yéen i kaay gi di révélation quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Kassé njiitul conseil conseil départemental bu Tamba moom nag nee am na yaakaar Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye dellu ci benn bokk yaakaar jàppale Amadou Ba yéen a kaay gii de la sa Abdou Ndéné Sall bu APR nee na candidat yu bëri ci biir APR loolee da di ñàkkloo nguur gi yéen a kaay gii de APR ma ngi ci dansé te ñaareelu tour baaxul ci benn bokk yaakaar njiitu réew mi di Macky Sall élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dina weex ci moom xat naan ñu Ibrahima Sall bu modèle nee na candidat la Souleymane Ndéné Ndiaye de la Dépêche Quotidien nee na mooy réew moo xam ne xanaa ñëpp candidat la ñu ndax candidat yaa ngi mel ni turleeg màlle journal bi xëy na ci yéen kaay gi di réew mi Quotidien ñu xëy fekk fa Amadou Gueye nee na candidat la ci élection présidentielle waaye nag li muy sàkko ci Antoine Diome ak ci Macky Sall mu indi ay firnde kane ay force occulte dafa am ci biir réew mii di Sénégal moom gën doon ñu naan dañu koo tojee dañu koo sàccee mafia bu doy war moo am ca ministère bi ñu dénk wàllum sport ma ne la ministère bi ñu dénk wàllum sport li nga xam ne moo fa xew ci wàllum fond covid 19 bi doy na war ci ay tappale ki caaxaan journal bi nee na Gris Bordeaux mbër mi nga xam ne moo jiite mbër yi nekk activité ak Saer Seck ñoom bi ñu jàkkaarloo enquêteurs yi ñoom dëggal nañ le ñoom seeni signature dañu ko falsifié ngir nag ministère ba mën a defar ay décharge yoo xam ne yu gaaw lay doon daasu ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di ngoom ñaa boo muy deux cent cinquante millions yoo xam ne moom la ñuy wax ne moom la ñu jox njiitul fédération sénégalaise de basket waaye li ci doy waar keroog bi nga xam ne ñoo ngi déglu gars yi ñoom ngom ñaa président fédération sénégalaise bu basket dañu ko woo sonn yéen gi nee na la nga xam ne moom lañ jàpp nag ca enquête ba ba mu jeexee mooy lu jëm ci wàllum détournement deniers publics faux usage de faux wàllum tappale wàllum njuuj njaaj wàllum wuruj loole la gis ci lu jëm ci wàllum nañu lu jëm ci wàllum lotissement mbuurkat bu ngeen déggee ñu ne tong tong nañu mbuurkat bu mu leen bett scandale boo xam ne ma ngi raam yéene gi nag nee na en tout cas alerte nañ lotissement mbuurkat bu ngeen déggee ñu ne tong tong nañ ko bu mu leen bett ndax scandale ba ma ngay téléchargé yéene kaay gi di wal fa jëre xëy dañu xibaar nañ gàmmu gi lu toll ci trois mille éléments la waa police génne ay drone ak i caméra yéene kaay gi di xëy dañu xibaar nañ ca yoo xam ne waa gendarmerie ñoo ko teg loxo pulaayee